bañ gis si ñu baree bari commencé génn nag di attaque ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko bokk na si ku si mel ni Madiambal Diagne moom daat nay yëkkati ay kàddu nag di ko xamal kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko waaye tamit kii di Ngouda Mboup moom tamit am na ay kaddu yoo xam ne yëkkati na ko waa Benno Bokk Yaakaar seen député yi nga xam ne ñoom lañ eh, ñoo nekk Assemblée nationale ñoom tamit ginnaaw conférence de presse bi nga xam ne doon nañ ko amal tamit yëkkati nañ si ay kàddu moo ngi noonu ñoom ñëpp daal mu mel ni dañoo daal si kaw ki nga xam ne moo di premier ministre bi di Ousmane Sonko waaye dina si ñëw ku si mel ni Thierno Alassane Sall moom tamit yëkkati na si ay kàddu loolu lépp dinañ si dikk ak ay révélation yu ama am solo euh, déclaration politique générale bi ni mu demee nii ana lan moo tax. est que kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko fi mu teg ay tànkam foofu la am déet loolu lépp dinañ si ñëw ak ay leeral yu ama am solo di jaa jaajëfal bu leen di fàtte abonné bés cloche de notification bi ñu dégtal leen vidéo bi ngeen daal di koy teewlu jaa ngeen jëf. kon je pense que coow li mënoon na ko bañ a dëgg la li nga xam ne nag mooy wax ji mooy bu fekkee premier ministre Ousmane Sonko demul ci trois ci délai wu trois mois yi ñu waxoon violé wul la waaye nag. ña maanaam bu bu toogee yenn délai yu yàgg yi danañ wax ni nag bu boobaa nag daf yaa yaa une tradition yaa une tradition républicaine boo xam ni da ko war a respecté loolu mooy dëgg aussi parce que réew kenn mënul bind lépp gis nga texte yi ay so ay piste rek la texte yi ñuy bind ay piste rek lay joxe mais kenn mënul bind lépp lenn élégance moo koy mottali de waaye nag il faut ñu benn principe ñu taxaw ci mooy violer la loi il faut ñu bàyyi ko ci réew mi il faut ñu respecter la assemblée nationale li ñu def teguñu ko fenn amuñu droit violer la loi organique dëggate ko comme ku seen këyitu ciment teguñu ko fenn parce que li ñu def mooy ensemble biñ deux mille dix neuf bi ñu changé génn premier ministre bi dañoo waroon a dugalaat article dugalaatuñ ko nag bu buñ ko dugalaatul nag bi ñu gisee bi ñu gisee ni violé nañ loi bi au lieu loi bu parce que li tax dugalaat gi ni mu waroon a demee mooy dañuy convoqué l'assemblée nationale voté ko loi la ci majorité bu foobaa. ñu valider ko dugal ko ci biir léegi ñoom defuñu ko doon dañoo jël dañoo dañoo jël loo ay noonu dugal ko ci biir saa ñu voté ko nga xam ni faux la ba noppi ñu continuer di ko utiliser loolu assemblée nationale ñi ko def dañu dañu dañu violer yoon te teguñu ko ci benn yoon. assemblée nationale nag ginnaaw moom mooy voté loi wala bu di violer loi loolu scandale la loolu kenn war ko caaxaane parce que moo tax loi boo ko violer daf lay dab rawatina ki nga xam ne yow yaay voté loi kooku nan ngay violer loi te yaa ko tey ab ah, ah, président assemblée nationale moo ko tey. bureau bi moo ko tey parce que président Mouhamed Lamine Diallo fàttali na leen ko Guy Marius Sagna fàttali na leen ko ñu tay ko violé loi bi mooy bañ a delloowaat article yooyu ci biir di utiliser euh, di utiliser règlement intérieur boo xam ni faux la te loolu nag lu loo xam ni rafetul la parce que loi ci réew kenn du ko foowee kenn du ko caaxaane la loi est dure mais c'est la loi kenn du ko caaxaane loolu dañ koy wax dañuy wax assemblée nationale à tout faux moom moo violé la loi loolu dañ koy wax mu leer nañ bu paree nag ñu wax ni malgré que assemblée nationale def na loolu waaye premier ministre bi nag war na dem assemblée mais nag ñii ñi am ñii tamit am nañ toor ñi ko bëgg imposer ni ko da war a ñëw ci trois mois yi te te loolu durée légale boobu amatul ñoom tamit dañoo am toor bu fekkoon premier ministre daa wax ni ñëw ma laa boobaa ñu ne ko yow kat même bu fekkee ni amul ci lu fuñ ko bind ci biir kii bi constitution moo la ko sant da nga ko def dans un raisonnable c'est ce dans un délai raisonnable bu on a 7 mois def ko laa ko yow da nga C'est ce délai raisonnable ce man ce ci du ay tradition dafa am bindu ko constitution ko fenn Angleterre am nañ constitution seen constitution amul fenn fu ko bind c'est des traditions yo ne ko ko par exemple l'Amérique mandat mandat présidentiel deux ans ñaari ku président bu ñaari mandat ngay def dem sa yoon loolu amul constitution Amérique ba mu jeex tàkk loolu amu ci amul fu constitution Amérique di di interdire kuy def trois ku def deux mandats euh, trois mandats yu tegaloo amul pourtant ñoom ñëpp c'est une tradition républicaine rek ñu respecté ko xel xalaatul nit taxaw fa ci laaj lu ëpp loolu kon tradition républicaine moo gën a dëgër sax lu ñu bind loolu faaw ko ñu bàyyi ko xel kon. déclaration bi moom dafa war a ñëw ba noppi dafa war a ñëw dans un délai raisonnable loolu mooy dëgg waaye nag kenn wër ta mën ta teg premier ministre bi benn pression di que loi organique bi xam da ko war na respecté amatul ci biir assemblée nationale violé na la loi ba mu ko arrangé tey nag violation loi boobu arrangé bi buñ di coow ah a doon violé la loi wax dëgg yàlla mënu ngeen violé loi ba tey ji ngeen bëgg wax leen ci yoon parce que assemblée nationale mënul jël di utiliser am règlement intérieur boo xam ne bu fóo la ñu fàttali ko ko mu tay ko ba noppi bañ koy jubanti ba tay jii ñu bëgg a taxaw di wax de point de vue li ñu wax rek loi kenn du ko fowee képp fépp réew bu ñuy fowee loi di loi daf leen attrapé te lu mel nii nag moom moo tax ñuy wax nañu respecté yoon di doxal yoon respecté loi di ko def réew dafa am nu muy doxe loi yi dañoo ëpp loi bu nekk dafa am constitution moo c'est la charte fondamentale moo féete kaw bépp loi am bu ne ci réew mi bu jàllee charte fondamentale dafa am lu ñuy wax une la loi organique loi organique boobu ñuy wax nag assemblée nationale c'est règlement intérieur boobu loi organique la du sax loi simple am na ñuy wax loi simple loi organique moo ëpp doole loi simple ñoom loi organique boobu lañ jël dëggate ko dëggate ko sànni fële kon ñoom ay député lañ député bu violer loi diñeetul pour nekk député ndax moom mooy voter moom mooy si député sax ñoom ñooy ga ñoom ñooy garantir la loi c'est les gara ñoom ñooy ga ñoom ñooy garantir loi nga ndax ñoom ñoo koy voté kon ñoom dañ ko war a sàmm ki ko war a sàmm nag mbir nag ki ko war a sàmm bu ko violé mais ko koy sàmmati kon daal wax bi pour tënk pour ba a guddal mooy premier ministre bi kenn mënu ko wax ni bu demul ci quatre-vingt-dix jours yi kenn mënu ko war a ngaa violé loi bu taxoon ni déw ma nag laa boobaa nag ñu ne ko yow da ngay violé da ngay violé loi da ngay sax constitution bi waaye bu toogoon nag ba toog lu bëgg ëpp une délai lu ëpp délai raisonnable boobaa ñu mën ko ko wax man jàpp naa lii solution mooy député yi am na lu leen yoon may nañ jëli leen yoon may assemblée nationale bu gisee ni premier ministre li mu def du yoon na bind président de la république ñaari institution lañ mën nañoo bindante président de bi soit da koy tontu wala président wax premier ministre mu dem defi déclaration bi ci tel délai jox ko ndigal mu dem te boobaa dem wala boog ñoom.

loolu kon ne xam na ko buñ ci d'accord ñu dem devant le conseil conseil àtte mu jeex waaye nag ñoom assemblée nationale ñuy nekk ay violekatu loi di jàngal kenn leçon ñoom ñoo war a garantir loi buñ ko violé amaduñ kenn premier ministre nag bu demul ci bu fekkee demul ci délai raisonnable booba ñu ne ko violé nga loi waaye nag premier ministre na dem ci délai bu jaadu kenn du ko tënk ci quatre-vingt-dix jours yi ndax loi tënk ko ci mais dem ci délai bu jaadu def li mu war a def mbir ma jeex

d'accord nag bu assemblée jaaduwul yoon nañ ko wax assemblée waaye ñoom du ñooy taxaw naan premier ministre yow wóoroo ñoom premier ministre moom ak am na ah, moom exécutif la bokk mook exécutif buñ fekkee ne gis nañ ne assemblée li mu def du yoon ñoom dinañ ko wax kon jàpp naa ni euh, bu njuumte day am député yi d'accord juum nañ seen yoon ñëwul ci loolu waaye kenn mënta forcer premier ministre nag ci quatre-vingt-dix jours yi mu ñëw mënul nekk parce que loi tënk ko ci waaye moom encore une fois ma waxaat ko na xool un délai raisonnable mu ñëw ci loolu la assemblée nationale bu ci d'accordul am na yoon yoon may na ko mu bind président wax ko li mu ko war a wax président tontu ko soit président day def liñ bëgg defu ko ñoom ñu dem ci conseil mu atte leen mbir ma yem fa. je pense que mbir mi compliqué wul dañ ko bëgg a compliqué def ko benn débat politique c'est poli li ci politique la en fait dëgg la xëy na euh, exécutif bi am na lu ñuy moytu ñeele tamit am na lu bëggoon muy. Euh, groupe parlementaire bi nekk ci opposition bi tey mu benn bokk am na lu ñu bëggoon xëy na ñoom euh, sur le plan politique euh, ñu comme ñoo fa majoritaire kii ba ñëw fa premier ministre ba ñëw fa lu mu mën a wax lu mu dëgër lu mu gii kii ñu def seen ay show politique xëy na yu mel noonu ñeete bëgg leen a loolu c'est normal c'est un combat politique mais nag bu mu combat politique boobu bu mu am na yaa des symbole républicain yoo xam ni combat politique bi wuru fa dafa war a wuru fa laal symbole ndax république ay symbole rek la symbole buñ ko respecté tu respecté république nañ bàyyi xel lolu député yi bu ñuy taxaw di wax en tant que député sen yoon néewul ci exécutif lumuy lumuy lu muy dogal lu mu dogalul nañ wax en tant que ay député exécutif mën na layel boppam do ay député ñokay layel lolu mo mooy am ci rew mi mais lolu du lu bax encore une fois kon dal ci teunk wax di Ousmane euh, le premier ministre il a l'obligation mu ñëw devant l'Assemblée mais pas ñu koy restreindre ci benn délai ndax loo restreindre ko ci benn délai constitution bi nag li mu ko sant mënu ko bañ a def force day ñëw dans un délai raisonnable bien sûr je pense que mën nañu yem foofu parce que li ñu waxal la ñuy waxaat mbir mi c'est très clair compliqué wul nit ñi ñëw ko bëgg a def coow loo xam ni indi benn tantamar coow politique mais je pense que c'est très facile am na ñoo xam dañuy dañuy politique ndax Ousmane Sonko dafa bañ a dem loolu loolu loolu aussi amul parce que waxul dafa bañ a dem te te weesoogul délai bu mu bañ a dem maa ngi fàttali Abdoul Mbaye nommé nañ ko fa 4 avril mois d'avril lañ ko nommé mu toog ba septembre septembre la def déclaration politique yooyu sax xëy na weesu na ko wala boog délai yi ñu tënk ko loolu yàgg na fi mais gars yi ñu ko bëgg a naan lu tax demul dafa bëggul a dem dafa ragal a dem loolu beneen débat la loolu wax joo xam ne jaaduwul la ñu ciy ëppal naan. dafa war a dem war a dem war a dem amuk war na dem mais nag kenn waru ko wax demal léegi-léegi ndax loi wax ko ko ku mën a génne loi bu ko wax ci euh, euh, ci loi organique bu assemblée nationale nga génne ko amul kon de ce point de vue dafa war a dem jeex na mais dafa war a dem tel délai loolu amu ci dafa war a dem dans un délai raisonnable loolu moo am je pense que mën nañoo yem foofu aleykum salaam wa